asalaamaaleykum mbokk déglukat yi ñu ngi amati mbégte di ànd ak yéen ci seen émission allo docteur ni ñu koy defee talaata bu ne eh, ci koor gi 9 eh, h ba 11h gan bi ñu doon xaar egsi na mu di professeur eh, Louise Fortes di infectiologue épidémiologiste responsable unité prise en charge Covid 19 ca hôpital. dalal jàmm bu géejawaay mooy fa ñuy fajee ñu yore jàngoro ji moom moo yore unité le mu di jàngalekat en même temps. Euh, ca faculté médecine bu université Cheikh Anta bu Dakar euh, professeur Fortes ñu ngi lay nuyu. Euh, maa lay fay. ñi ngi lay dalal jàmm ci suñu studio yi professeur sànq maa ngi koy junj mm, di wax ne dañu yeewu gisaat beneen xibaar bu jëm ci décès maanaam kenn koo xamante ne yore woon na itam jàngoro ji daal di faatu ñu gis ne âge bi mu ngi ci juróom-ñaar fukki at ak ñeent ba tey mu mel ne dafa am. benn catégorie benn age boo xamante ne ba tey ci la ñuy constater ay décès ñuy ñàkk seen bakkan ci jàngoro ji euh, lan moo leen di faxal di rey si biir jàngoro ji professeur. Euh, maa ngi lay nuyu tout d'abord nuyu téléspectateurs yépp. Euh, pour répondre ci sa question bi déjà ñu ngi présenter condoléances yi. ki nga mhm. xam ne dafa génn àdduna. bu ñu xoolee données yi ci Sénégal. chaque fois que ministère wax ne nit dafa faatu ci feebar bi mën nañ constater que le plus souvent en tout cas ñu ngi am 60 ans am 75 ans jëm ci kaw. Mhm. résultat yooyu noonu du résultat yi nga xam ne ne que c'est résultat wu Sénégal la dans le monde bu ñu xoolee statistiques yi gis nañ ni que ñi nga xam ne ñooy faral di dee ci feebar bi en tout cas di faatu. Mhm. mooy les sujets âgés. xam nga ne ñëpp xam nañ ne que boo nekkee sujet âgé défense organisme bi du demee noonu. Mm-hmm. ba pare dina am yeneen feebar yi nga xam ne le sujet âgé dina am yeneen feebar yi nga xam ne da ciy raxaale. Mm-hmm. te gis nañ ne que bu ci raxee ak virus bi nu muy ñëwee ci yaram bi day faral di entraîner ay formes yu grave moom loolu mooy expliquer ñuy décédé. Mm-hmm. en général naka la ñuy présenté woo oh, yan forme genre complication la ñuy am finalement ñoom. Euh, donc il le plus souvent dañuy def ay complications au niveau respiratoire. dañuy dem ba nga xam ne ne que du ñu mën a noyyi normalement suñu mënul noyyi normalement dañuy soxla oxygène mhm. dépendance oxygène bi quantité bi ñuy soxla day continuer di augmenter c'est vrai que après de malades bi day nécessité dem réanimation mhm. su demee réanimation bu boobaa dinañ xool mais seetlu nañ ne tamit au début dañu foogoon ne ne feebar bi juste au niveau poumon la mais études yi wane na ne que fu mu ne ni malade bi dafa ne dafa mel ni feebar bu nga xam ne day laal euh, organe yépp maladie systémique la te seetlu nañ ne tamit ñi nga xam ne dañoo décédé gis nañ ay études yu euh, euh, yenn dëkk yi publier mhm. ñi nga xam ne ñi nga ne dañoo faatu ñu defal leen autopsie. waaw ñu seetlu ne tamit trombose bi. Mhm. Euh, problème de coagulation bi tamit day nekk ci feebar bi. Mhm. loolu moo tax bu ñu xoolee léegi recommandation yi changé nañu. waaw nit ki nga xam ne dafa am corona bu amee benn certain at bu amee comorbidité bu dee dafa obèse dafa am en plus de traitement yi ñu koy jox dañ koy defal anticoagulant. pour mën a en tout cas réajuster ça loolu nee naa virus bi chaque jour ñu xam lu bees ci moom mm-hmm. euh, avantage bi mooy ñi nga xam ne ne euh, ñun ñoo mujjee euh, en tout cas feebar bi ñëw law suñu dëkk on bénéficie finalement de expérience yeneen dëkk yi uh-huh. voilà et ensuite réajuster traitement bi donc c'est des complications thromboemboliques Mm -hmm. euh, problème coagulation c'est des complication au niveau respiratoire gis nañ ne sax léegi. xol bi day xol bi voilà problème xol bi gis nañ ne am na ñi nga xam ne sax virus bi sax mën na entraîner ay problème au niveau neurologique. Mm-hmm. donc euh, nee naa virus bu nga xam ne la euh, bu mu fi nekkee. yàggul la daal waaw parce que mot na ñeenti mois mais ba léegi des na lu bëri li nga xam ne xamagul ko. wax ko si xam. Mm-hmm. d'accord jërëjëf euh, professeur bi ngay. xëy di ñëw fii incha xam naa ni jël nga sa matuwaay ndax yaa ngi takk say masque say bagage indaale sa ay gel et mais xam naa ni bi ngay génn comme ni ko oustaz Alioune Sall di waxee bi ngay génn sa kër ñàkkul moom noonu lu koy léeboo nee na virus bi dalay wax foo jëm. Uh-huh. nga ne ko maa ngi jëm si def mu ne la yóbbaale ma ndax moom amul tànk mun te dem. Uh-huh. mais ci yow lay langaamu. Uh-huh. bi ngay jógee sa kër di ñëw euh, professeur euh, ban matuwaay nga jël balaa ngay génn. balaa may euh, génn sama kër déjà dinaa raxasaat samay loxo bu ñu dinaa dugg sama sama oto. bi ma duggee sama oto balaa may génn dinaa ci kër gi dina may damay takk sama masque systématiquement. après dinaa dugg sama oto c'est vrai que ci oto bi man kese maa fa newoon. Euh, bi ma euh, yegsee euh, fi bu ñu fàtte ne laal naa lu bëri. waaw laal naa sama volant wu oto. laal naa portière caabi bi laal naa portière yi. donc bi ma yegsee dama jël solution hydroalcoolique defaat ci samay loxo. bi ma yéeg tamit escalier yi. ni may ñeme jàppandu yëpp jàppandoo ma ci escalier yi. <laughs> waaw loolu jar a bàyyi yi la. waaw ah, donc léegi tamit moom ah, rampe escalier yi tamit jàppandoo ma ci bi may yéeg escalier yi. Mhm. damay dem moytu nag bañ a daanu taxis <laughs> mais daal laaluma ramp escalier bi ma yegsee. Mhm. ma euh, kii euh, nettoyer sama sama sama en tout cas sama loxo. Mhm. c'est surtout surtout bu ma ñibbee nag. bu ma ñibbee nag voilà bu ma jógaatee fii war a sama kër wala dellu foofu nag. dinaa ci yokk yeneen matuwaay. Mhm. dàll yi bu ma yegsee dàll yi dama koy fomp ci serpillère bu nga xam ne dafa am eau javelisée. xanaa dañ koy préparer. tey waaw dañ koy préparer serpillère bu nga xam ne dañ ko trempé déjà ci eau javelisée. Mhm. dàll yi tamit du ko dugal ci biir. ci biir euh, ci ci ci entrée bi juste la yem. d'accord ci entre bi juste lay am après c'est tout un rituel su may yegg si balaa dara di xew ma euh, raxas dem raxasi sama loxo mhm. su ma raxasi sama loxo ba pare ma génnee ma damay génnee masque bi ba pare su ma génnee masque yoo ba pare ma sànni ko ci poubelle bi raxas sama loxo su ma raxasee sama loxo ba pare après ma commencé nag rituel de désinfection. jël sama portable bi désinfecté ko. loo koy désinfecté. Euh, dama koy désinfecté ak alcool 70 pour cent. waaw laa koy désinfecté moom laay. da ngay jël coton voilà coton waaw mhm. coton laay jël. nettoyé ak ak alcool 70 pour cent bi nga xam ne dama ko jëndee pharmacie. waaw am na léegi sax am na ay lingettes yu ñuy jaay ah. nga mhm. xam nga mën nga ko utiliser. ma nettoyé tamit clé bi. léegi dama koy xooj carrément ci ndox au lieu ma koy nekk nettoyé dama koy uh-huh. ci ndox ak saabu je nettoie les clés mu xëpp daal waaw mu xëpp ensuite clé yi xam nga ma ko nox ma ko xoojee ci ndox bi du baax donc bu boobaa moom dama koy fomp après ma continuer ma raxas sama loxo yére yi nga xam ne yëpp dama ko soloon dama koy am fu ma koy teg mm-hmm. parce que dañ koy def euh, dañ koy euh, fóot <laughs> ensuite nag may door a nag commencer euh, voilà nekk à l'aise euh, ak ñi ñi nekk ci kër gi. d'accord donc soo jógee fii ak soo jógee hôpital tam jëm sa kër noonu rituel boobu ngay def exactement. d'accord sooy dugg hôpital. par exemple nga jógee fii bëgg a dem hôpital fi mu su ma jógee fii déjà bu ma yeggee bu bu may génn ci studio bi dinaa jëlaat solution hydroalcoolique ma defaat ko ci samay loxo. Mhm. ensuite dinaa dugg sama oto. bu ma duggee ci oto bi ensuite dinaa yegg hôpital su ma yeggee hôpital damay changer seen tenue de travail moom laay sol. Mhm. ak euh, génne euh, boo seetloo perruque laa sol donc perruque bi dama koy génne. <laughs> waaw <laughs> ndax bi dama koy génne parce que euh, ak loxo yi ñuy laal mën nga laal sa bopp perruque bi sax mën na nekk. Mhm. en tout cas source de de de de contamination. moo tax par contact ah. donc perruque bi dama koy teg fële. ensuite ma sol lu mel ni Charlotte. sol samay dàll hôpital. Charlotte mooy xeetu mbaxane voilà xeetu mbaxane waaw moom laay teg ci sama bopp bi. ensuite génnee jaara nopp yi nga xam ne moom laa sol damay génne jaara nopp yi. léegi nee naa dama changé parce que ni may ñeme takkaay yëpp léegi moom bàyyi naa montre bàyyi naa bague <laughs> bàyyi naa bracelet yooyu dama ko teg fële parce que da ngay xool booy raxas sa loxo soo bëggee loxo yi ñu raxas set ko munoo ko raxas eh, montre bi doo ko tooyal donc léegi c'est si qui boo yorowul mbagg yoro montre yoro euh, bracelet. Mm-hmm. bu boobaa c'est sûr boo defee sa désinfection désinfection bu baax. naa laal fépp dina laal fépp. Mm-hmm. d'accord voilà euh, dafa am loo ci yokk prof. Euh, non waaw loolu laay def. après ma après ma tàmbale liggéey bi léegi ñun fi ñuy liggéey itam suñu bërëb liggéeykaay ñëpp dañuy sol masque. Mm-hmm. même bu ñuy toog nii di travailler léegi jusqu'à parce que léegi cas yi parce que lan mooy lan mooy drame bi c'est que ñun ñi nga xam ne dañoo nekk. au front. bu kenn si ñun bu daanooy rek sa veut dire man bu boobaa damay nekk personne contact. contact bien sûr donc instant yi nii on va essayer xam nañ nekk mu possibilité de contamination mun na nekk par même en dehors de l'hôpital mais li ñuy def ñun bu ñu nekkee ci hôpital bi on fait le maximum yor solution hydroalcoolique am nañ ay euh, euh, sorte de fût yi nga xam ne dafa am solution chlorée dosée à zéro virgule zéro cinq pour cent. Mhm. loolu pour ñuy raxas suñu loxo la am na solution hydroalcoolique donc loolu yëpp dañ koy respecter. respecté également la la la distance tant que c'est possible parce que parfois du ñu mën a liggéey du ñu mën a rester mais au moins. Mhm. dañuy sol suñu masque yi. sans compter toutes les mesures ah booy neem dem li ñuy wax entre guillemets zone rouge. fi malade yi nekk moom yooyu moom yeneen matuwaay ngay jël moom. yu gën a dëgg <laughs> yu gën a renforcer wu. waaw a renforcer wu. d'accord euh, professeur balaa ñuy ubbi antenne bi euh, évolution cas yi ni muy demee nii ñu ngi ci deux mois bi ñu commencé xeexal ñànga xoji ak léegi. Euh, ci ban anam nga ñu gis fii ak benn ay bés incha allah. Euh, bu ñu xoolee cas yi euh, am na benn document bu centre des opérations d'urgence euh, partagées COES bu ñu xoolee les statistiques au niveau du Sénégal c'est-à-dire que Sénégal dañoo nekkoon mën nañ ne wax ne commencé woon nañ sax yëkk ci mbagg parce que bu ñu xoolee cas yi da doon am ay vingt trente dañoo jékki-jékki rek yëpp yi augmenté dañu doubler le nombre de cas en moins de d'une semaine mm-hmm. suñu cas yi dafa augmenté donc instant yi nii bu ñu xoolee prévision yi di d'ici quelques jour en tout cas peut-être cas yi dina fi yegg ba ay mille dépassé ko donc partant de ça il faut qu'on revoie. dépassé nañu mille. waaw mille mille ñaata. voilà à peu près ngay fo. Euh, bu ñu xoolee en tout cas document bi nga xam ne ne que moom la ñu publier démb fii ak euh, diir yu gàtt dinañ am plus de mille cas en tout cas yu bees au niveau du Sénégal. de mille cas yu bees encore. voilà nouveau cas maintenant. est ce que danañu yegg 2000 à peu près. ah yegg 2000. ah mais yegg 2000 bi ça dépend ci ñun. yëgg 2000 bi. ci ñun la dépendre ci ñun la dépendre pourtant ma wax ne ci ñun la dépendre parce que dañu am ay prévision prévision je pense que dañuy xool euh, la situation bu nga xam ne ne que rien n'est fait mais actuellement il est encore temps on peut euh, population bi maa ngi leen di ñaax encore. vraiment nee naa ko man nee naa ko la lutte n'est plus dans notre camp en tant que personnel médical. de la population sénégalaise mhm. euh, donc instant yi on va redoubler d'efforts on va encore insister j'ai vu que ministère day réadapter tout le temps euh, les les communications j'ai vu même des affiches yu bees en en étant axé sur la commune sur les cas communautaires même ñuy wane kenn ku nga ne ne que travailleur manuel la je pense c'est un mécanicien on lui demande de porter dañ koy laaj pour mu sol masque même bu nekkee euh, dans son lieu de travail mm-hmm. aujourd'hui oui peut-être qu'on va s'attendre à une augmentation de cas mais ça c'est si rien n'est fait si rien n'est fait euh, chose peut être oui quelque chose peut être fait d' accord ñu wax ne kon en attendant ubbi nañu antenne bi ci 33 825 18 30 tey ñu ngi ànd ak. Euh, professeur Louise Fortes mu di infectiologue épidémiologiste nekk responsable unité de prise en charge euh, Covid 19 bu hôpital Dalal Jàmm euh, bu Géejawaay di jàngalekat itam ca faculté médecine bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñu jël suñu auditeur bu njëkk asalaamaaleykum. waaleykum salaam bi na nga def. waaw. Ibou Ngoné Mbengue yëmbal. Ibou Ngoné Mbengue ñu ngi lay nuyu Ibou. Euh, maa ngi lay fay soxna Ndeye Khady Ba. merci. Euh, di rafetlu émission bi. Mhm. Euh, di la wax ni déwénati yàlla dogal na at mu jot ñaan di ko yéen. Mhm, déwénati ñoo ngi lay ñaanal bu baax di ñaanal gan gi nga dalal. allahumma amiin. di jotaay bi li mu ko expliqué. Mhm. man na li ma doon laaj par rapport ak ci amee kore naa jàngoro ji. ndax souvent da nga daan gis ñoo xam dañu am seen maladie chronique yoo xam ne dañ koy wéyaale ba keroog euh, maanaam dinañ dina dinañ ko wéyaale ba ba def ci ay at yu bëree bari mais ñu gis ni euh, ku amee corona bi sa fekk nga amee woon jàngoro yi da lay yëngal daal. Mhm. ba daanaka euh, daf lay jox ay gàllankoor yu doy waar. ñu doon laaj na ndax ku amee corona dafay sulli yeneen jàngoro yu nekkoon ci yow su fekkoon nëbbu woon na ndaxam. bu ko defee ñaa ngi rafetlu émission bu baax a baax di kontaan. merci beaucoup Ibou Ngone Mbengue ñu xool professeur suñu dajalee euh, ñaar ba juróomi laaj ñu taxaw bàyyi la nga tontu ci 33 825 18 30 ak professeur Louise Fortes asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëriñ bi na nga def. soxna Ndeye Khady Mouhamed Thiam Malicounda Mbour. Mouhamed Thiam ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Ramadan Moubarak yow ak sa invité boobu. ak Sud FM yëpp. Ramadan Moubarak yow itam jërëjëf. waaw ak l'ordre des médecins ak les euh, ak Val d'Afrique daal. merci beaucoup. waaw di leen gërëm bu baax. waaw waaw ma dem bëggoon laaj euh, docteur. Mhm. comme virus bi dañu wax ne amul remède. am nest pas. waaw mi ngi déglu mi ngi déglu waaw. complexe amul remède dañ c'est-à-dire que pathologie yi nga am rek moom la ñuy jéem a traité comment se fait-il que ñu ni nit ki wér na ba virus bi amatul si yaram moom naka lay def virus bi dafa am durée de vie wala nu mu demee noonu d'autre part maa ngi ñaax maa ngi ñaax ñëpp xale yi ñu suivre ndigalu docteur yi bu ñu bëggulee suñu mag yi jeex senegal na xale yi toog euh, docteur yi di faj mag yi on les appelle les gériatres Mm-hmm. waaw suñu bis bu continuer dootuñu am liggéey bi mm-hmm. daañu dem daañu dem daañu dem jàngiwaat pédiatrie wala ñu jàngiwaat leneen de parce que moom ma macha allah yal na yàlla taxawu ñëpp macha allah. allahumma amin jërëjëf merci beaucoup Mouhamed euh, Thiam doon woote Mbour ci 33 825 18 30 ñu xool euh, ban euh, destination la ñuy am ànd ak suñu gan mu di. Euh, professeur euh, Louise Fortes euh, di infectiologue épidémiologiste yore ah. unité prise en charge bu hôpital dalal jàmm asalaamaaleykum. maaleykum salaam Ajaratu Ndeye Khady Diop. Uh-huh. Barke Diop Sarr 93 point 2. Uh-huh. Barke Diop ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay di la siyaar. ñu ngi delloo ziar. na def Ndeye Khady. alhamdulilah. yéen moom yéen a ngi ñuy jàppale quoi bañ a guddal sax mais yéen moom. Mm-hmm. c'était pas Sud FM kenn du xam ci corona dara quoi. yëpp waxoon ngeen ko avant quoi mais comme moom li mu waxee c'est invité quoi bi muy génn jël na euh, précaution yëpp jël na euh, li mu war a jël yëpp léegi bu rombee maanaam lu mel ne canal 4 boobu ouvert mhm. mbalit mi ci dëkk bi pagaay weñ yi maanaam nit ñi tamit yow nga jël sa précaution yëpp gis ñoo xam ne jëluñu say précaution te askan wi li ñu leen wax yëpp ñu ngi koy def am na ñoo xam ne sax mënuñoo jënd or d'Isabelle bu vingt cinq francs te foo leen romb ñu ngi takk masque ñenn ñi génnuñu te yéen lii si FM waxoon na ko quoi parce que ñoom ñu ngi leen di protéger mais ñoom toujours ñu mën a wax ne ñoom amuñu moyen te feebar bi feebaru moyen la le minimum nañu construire ay hôpital jox suñu médecins yi ay jumtukaay ñoom nag duñu wax ñun ñoo leen di waxal te fu ñu leen waxee ñuy wax maa la nanu jaar ci digg bi lii du lu ñuy maslaa amu leen matériel dund bi defoon ko ay hôpital équipé waat sunu op sunu sunu sunu sunu hôpital yi te ñuy jël ay hôtel xam nga yi ay gàcce la quoi vraiment ay convoi la moo lay romb guddi gi ñu leen escorté di transférer les malades ndey yi maa ngi bañ a guddal mais merci beaucoup <laughs> merci beaucoup jërëjëf Euh, Barka Diop saar ñu xool ki si topp kan la ñu daal di taxaw tuuti bàyyi professeur mu tontu balaa ñuy ubbiwaat euh, ligne bi ci euh, suñu émission tey jii 9 h ba 11h lay doon ñu ànd ko ak suñu gan asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëriñ bi na def. jërëjëf jërëjëf nañu sant. waaw. ay ci ñu ngi lay déglu. man li may laaj. Mhm. mooy corona bi est ñoom. mënuñoo fexe nit ñi tëju we wen suur wen cinq su ko defee même bu dee dañuy sombi naan sax nu <laughs> sombi naan ndax yëf yi feete boor d'accord loolu laa amoon lu ma ciy wax d'accord jërëjëf seen émission bi rafet na merci beaucoup jërëjëf kon euh, Pape Lay su fekkee amul ku rëcc ñu daal di taxaw euh, daal di tontu dafa am ko egsi ay ca euh, kon ñu ànd ak Ibou Ngoné Mbengue moo fi njëkk a dugg si nee na seetlu na ne euh, coronavirus kon euh, jàngoro la boo xamante ni nii li ñu seetlu mooy dafay aggravé wala dafay sulli yenn saa yi jàngoro joo xamante ne xëy ne dafa nekkoon ci yow muy genre maladie chronique lan nga koy tontu. mën nañ wax ne que déjà maa ngi koy remercier ci question am donc déjà ñi nga xam ne dañoo am maladie chronique. feebar bi mën na ko aggraver da koy tax mu gën a garaaw. Mhm. mais gis nañu tamit virus bi bu duggee ci sa yaram dina ci indi tamit yeneen complication loolu mooy gën a tax nit ñi di faatu. Mhm. mais pour mu sulli yenn feebar yi si je prends par exemple nit ku xam ne dafa amee woon jabet waaw te xamu ko. Mhm. virus bi su duggee ci yaramam effectivement. ak euh, décompensation aggravation wu diabète bi mën na nekk circonstance li ñuy wax ci ñun circonstance de découverte. de découverte ci ngeen koy xam ci lañ koy xam. mais li ma mën a wax mooy ñi nga xam ne dañoo am feebar maladie chronique. Mhm. virus bi day feebar bi day gën a garaaw ci ñoom te virus bi tam day entraîner yeneen complication yeneen destruction mhm. yenn yàq-yàq yi nga xam ne lay def ci poumon bi lay def ci rein bi lay def ci cœur bi mhm. moo tax maladie di faatu d'accord Mouhamed euh, Thiambour nee na coronavirus amul euh, garab buñ ko mën fajee déjà li ñuy def mooy traiter symptômes yi mandarga yi nit ki di wane mu ne dans ce comme amul garab yéen symptômes yi rek ngeen di traité naka ngeen di def ba xam ne kat kii jàngoro ji seet na si yaramam. Mhm. beneen bi mooy virus bi ndax am na durée de vie. waaw euh, dañuy xool euh, doomu jàngoro bi day dugg ci yaram. su duggee ci yaram dafay law. am na li nga xam ne organisme bi doomu jàngoro bu mënut dugg ci sa yaram dafa organisme day produire li ñuy wax anticorps mhm. léegi anticorps yi ñoom ñooy xeex contre virus bi. système de défense li nga xam ne moo lay xeex contre feebar itam day taxaw. fas yéene xeex ak doomu jàngoro bi. Mhm. léegi li ñu constaté au bout de à peu près ay 7-10 jours le plus souvent bu ñu xoolee la moyenne c'est au bout de 10 jours en tout cas déjà maladie virus bi kenn du ko gisati ci yaram bi. au bout de 10 ah, jours de traitement voilà au bout de ça mën na nekk. avec mm. ou sans traitement. d'accord parce que am na ñi nga xam ne tamit ils vont éliminer. le virus naturellement et ils von éliminer le virus anticorps yi nag apparaître ci lan la ñuy euh, loolu lu nga xam ne que c'est spécifique au corona <laughs> suñu xoolee exemple grippe bu ñu xoolee tamit exemple yeneen feebar yi noonu la c'est ça le suivi naturel maintenant tant que léegi ci lan la ñuy sukkandiku pour wax ne nit ki dafa guéri wala guériwul ci virus bi est-ce qu'il est toujours présent est-ce que mi ngi ci ba tey au niveau des voies respiratoires est-ce que virus bi mu ngi ba tey au niveau de la ci biir bakken bi ci fond bi ak est-ce que mu ngi ci biir gorge bi dégg léegi nu ñuy def ñun ñi nga xam ne ñooy toppatoo maladie waaw maladie bu ñu xasee ba hospitalisé euh, bu ñu dawalee ñeenti fan ñeenti juróomi fan dañuy commencer def contrôle bi mhm. contrôle bi dañuy def prélèvement au niveau nasopharyngé bu ñu defee prélèvement bi su prélèvement bi négatifee ñu defar encore beneen prélèvement deux jours après mhm. su amee ñaar ñu négatif patient bi il est déclaré guéri parce dina dina loolu mooy wane ne que virus bi newatul au niveau des voir respiratoires. Mhm. mais bu ñu ko defaloon test tey dinañ xam ne ne que ah am na anticorps te anticorps yi seet na ne que deux semaines en général c'est deux semaines après le début de la maladie la anticorps yi di apparaître au niveau du sang malade bi nag mën nañ ko tester mu nekk positif bu nekkee positif dañ fa ñu fa xaar trois jours après mhm. ñuy recontrôler ci mhm. loolu la ñuy sukkandiku pour wax ni nit ki dafa guéri d'accord Euh, Barka Diop Sarr euh, nee na dégg na la sànq nga ni jël nga sama tuwaay bi ngay ñëw fii ak itam sooy dem hôpital naka ngay def sa parcours yëpp daal yaa ngi si euh, jël sa disposition mais nee na nga imaginer koo xamante ne par exemple comme yow jël na disposition am xëy na génn ci mbedd mi rencontrer sujet boo xamante ne jëlul disposition am mu tudd benn environnement wax par exemple nga romb boori canal 4 dox fa xëy na ñàkkul ci canal boobu am na fa loo xamante ne xëy na mën na. Euh, gën a nasaxal sa kaaraange yow ci sa bopp yow mi jël sa précaution leneen li mu wax itam mooy jàpp na ni bérébu fajukaay yi amuñu moyen professeur. Mhm. te yéen nee na du ngeen di faral yenn saa yi di <laughs> di bëgg a wax askan wi ñoo leen ko far di waxal. waaw maa ngi koy remercier ci question wam bi euh, suli na lu am solo parce que boo xoolee mi ngi wax waxu kanal 4 wax na waxu mouche. waaw te ñun xam nañ ne maanaam feebaru infectieuse maladie infectieuse Euh, parfois du question domaine uniquement médical. Mm -mm. problème mu éducation la problème mu niveau. socio environnement niveau socio-économique niveau éducation population bi. Euh, léegi euh, nee na euh, loolu wax na dëgg. bu dee man damay jël samay précaution wane nañ ne que boo solee maak yow bu ñu solee masque. Mm-hmm. bu ñu même bu ñu nekkee face à face de risque en tout cas de transmission est réduit. mais yow kenn ki sol masque keneen ki solul masque. kii sol kii mi ngi raxas loxo kii raxasul loxom kii nee nañ ko mu toog moom keneen ki moom du toog day day mais loolu loolu moo tax ñëpp ci war a jàpp mm-hmm. loolu moo tax nga xam ne ñëpp ci war a jàpp précaution ñëpp ci war a jàpp bu ñu ñëwee ci matériel bi c'est vrai que léegi de plus en plus ñu ngi dégg waaw ñu ngi réquisitionné ay hôtel et tout mm-hmm. je pense que wax na dëgg d'une certaine manière le système sanitaire en tout cas war nañ ko améliorer war nañ ko améliorer en termes de d'infrastructure sanitaire mm-hmm. en termes de augmentation du nombre de lits en termes également de réanimation pour la prise en charge il faut euh, mun nañu wax ne ne que euh, feebar bi occasion la mhm. occasion la pour renforcer nos système sanitaire ak ressources humaines ak ressources humaines tamit parce que bu ñu xoolee instant yi nii on était peut-être en tout et pour tout ñaata lal c'est sûr que bu cas yi augmenté il faudra qu'on augmente le nombre de lits est-ce qu'on a suffisamment le nombre de lits bu ñu xoolee prévision yi on n'aura pas pas suffisamment de lits pour mën a hospitaliser ñëpp am na ñi nga xam ne bu ñu xoolee démb am na document réflexion bu ñuy wax prise en charge ñi nga xam ne ne que du ñu dem ci hôpitaux yi dañ leen di yóbbu ci hôtel yi mm-hmm. parce que xam nañ ne hôpitaux yi du leen duñ leen a jël leen mën a jël en charge euh, euh, euh, vrai que je pense que le problème si pays mais même en Europe un moment amatuñu malade yi ci couloir dañu saturé dañu saturé mhm. ñun nag yëgguñu ci ñu taux de saturation mais mun pas yëgguñu peut-être suñu pic mais yëgg nañ déjà suñu taux de saturation ah de bu ñu xoolee ne que nombre de lii ñu ngi réfléchir maintenant ñu ngi réfléchir dem di prise en charge extra hospitalière sa veut dire que suñu wóoroon ne que suñu mën dinañ ko mën jël tout dans les hôpitaux bu boobaa c'est vrai que instant yi ministère mi ngi xool pour encore ubbi mhm. yeneen centre de traitement mais xam nañ ne que ubbi bi du gaawee noonu parce que il faut y a tout un logistique bu nga xam ne des logistiques yi nga xam da nga ko ne war a teg en place d'accord Mboro nee na euh, ci wàllu coronavirus bi est-ce que euh, professeur waruñu def confinement nee na lu toll ci ñaar fukki fan ak juróom yoo xamante ne kenn du génn kenn du dem kenn du dikk donte sax nee na dañuy sombi di naan dina ko jeex ah, lu ko jar a ko jar de. Mm-hmm. c'est vrai que problème de confinement bi depuis lors euh, ñu ngi koy wax euh, ñu ngi koy wax est-ce que dañu war def confinement après ñu ne est-ce que waruñu def confinement par quartier am na ñoo xam ne ñu xalaat ne ah confinement tamit bu ñu ko defee am na ñoo xam ne boo ma confiné de loolu mooy damay dee mm-hmm. parce que soit ma génn ma jànkonteel feebar bi ma jël samay matuwaay te du ma ko am dinaa am lu ma lekk mm-hmm. soit léegi ma toog sama kër ba ma fa toogee du ma am lu ma lekk yeneen dëkk yi ils on pu fair le confinement facilement mais ñun. on n'a pas pu faire le en tout cas jusqu'à présent kenn waxagul confinement léegi gis nañ ne dañu jël matuwaay marché yi dafa am jour yi nga xam ne dañ koy ñëw tëj. loolu yëpp pour éviter le maximum est-ce que dinañ yegg confinement ou pas point d'interrogation mais en tout cas dëkk yi nga xam ne euh, jiitu nañ ñu ci épidémie bi wane nañ ne que confinement quand même am na effet positif pour diminuer le nombre de d'accord euh, balaa ñuy ubbiwaat antenne bi professeur dégg naa la sànq ci sa njëlbeen yi wax ngay wax ne ci document bu mujj bi ngeen euh, jot file xëy na peut ak ay euh, ayu bees danañ ñu amaat soo moytu lu toll ci junniy cas yu bees kon à peu près daal danañu dem ñaari junniy cas nga wax ne yéen ngi ci intra hospitalière bi ci wàllu prise en charge bi bu ñu fa yeggee loolu naka lay demee incha allah. Euh, prise en charge extra hospitalière yi euh, loolu euh, ministère de la santé euh, mu ngi ciy réfléchir réfléchir na ci ba pare parce que il faut que ñu xool ñan bu ñu xoolee ci fu euh, ci cent personnes ci fukki nit yu amee feebar bi juróom ñett yi dañuy am forme yi nga xam ne dañuy simple am na ñi nga xam ne nag ñi ci des day nekk forme yu grave wala ñi nga xam ne dañuy soxla réanimation <laughs> mais tamit boo ñu fàtte ne ci ñi nga xam ne dañu am forme simple am na ñi nga xam ne ci mën nañ. seen tableau mu garaaw. loolu xawul bëri noonu à peu près dix quinze pour cent la. Hmm. benn ci bu ñu jëlee ci ci ci quatre vingt ci cent personnes yi nga xam ne dañu amoon forme yu simple. Hmm. peut-être euh, dix wala quinze ñoom ñoo évoluer vers la gravité wala ku amoon faire voilà. Hmm. maintenant ñooñu noonu ça veut dire que prise en charge hospitalière il faut déjà ñu wax na ñan extra hospitalière. ñan ñoo ah. la ñuy yóbbu en prise en dafa ami feebar parfois day nekk si biir parfois dañuy nekk ci biir site bi. ñuy faj maladie ñu ne mais man ngeen ma ne ma dama am feebar man yëguma dara. dara jotuma man dara jotuma. waaw euh, parce que il n'a aucun amul benn symptôme. moom la ñuy wax ci médecine asymptomatique. léegi nee nañ ñi nga xam ne dañoo am dañoo nekk asymptomatique ki nga xam ne ne amul yaram bi tàngul ki nga xam ne amul problème mu noyyi. Mm-hmm. Euh, kooku mën nañ ko jël ci prise en charge extra hospitalière mais du tee. dina am minimum de surveillance bu ñuy am parce que xam nañ ne ko ah ci ñoom ci cent personnes peut-être am na fukk wala quinze yi nga xam ne mën nañ évoluer vers la gravité mhm. ñan ñooy ñi nga xam ne ñoom du ñu sax laam-laamee ñoom bu ñu feebaree hôpital lañ jëm directement mooy ki nga xam ne dafa amee feebar bi am yaram bu tàng mooy ki nga xam ne dafa am feebar bi euh, mu amee euh, yenn kii yi nuñ koy waxatee sax ki nga xam ne dafa am feebar bi mu am li ñu doon wax sànq comorbidité yeneen ma diabète tension cancer drépanocytose am na asthme am na garab yi muy jël mhm. ki nga xam ne tam dafa feebar problème mu nooy yi daf ko am demble mhm. kooku noonu moom day dem hôpital. directement directement loolu moo tax place yi léegi c'est devenu entre guillemets mën naa wax dafa cher. <laughs> place yi il faut ci hôpitaux yi. il faut ñuy ji xool kan yombatul waaw kan mooy dem hôpital kan moo dul dem hôpital. et comme ni mu doon waxee sànq encore ñu ñëwaat ci loolu. Mhm. améliorer vraiment suñu système de santé. parce que tey ñu ngi jànkonteel corona mais suba. beneen xëy na mën ñëw beneen mën na ñëw beneen sax ñaan ñu ko yàlla. waaw mën na ñëw ngum léegi. Mhm. voilà donc voilà d' accord euh, merci beaucoup professeur ñu ubbiwaat euh, antenne bi ci 33 825 18 30 ñu ngi euh, xaarandikon le point ak ministère euh, santé bu ñëwee ñu dégtal leen ko doog defaat commentaire ak professeur Louise asalaamaaleykum. 33 825 18 30 ñu ngi ànd ak Val d'Afrique moo leen di may émission bi saa su ne 9h30 la ba ñu ngi ànd ak professeur Louise Fortes di infectiologue épidémiologiste yore unité prise en charge euh, de Covid 19 bu dalal jàmm di jàngalekat euh, tamit euh, ca faculté médecine bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar. c' est vrai que su ma xalaatee peut être un moment demoon nañ 30 30 après ñu dem 60 peut être on est à peu près à. une moyenne de cinquante cas tous les jours. su ñu nee cinquante cas tous les jours fii ak euh, dix jours ça nous fait déjà cinq cent. cinq cent cinq cent nouveaux cas. sans mm. compter bees bu ñëw day am moom ci boppam ay contactam contact effectivement tam mën nañ positif. donc bu ñu basé wu ci loolu. Mm. c' est vrai que bu ñu xoolee yeneen dëkk yi dañuy wax taux de reproduction lan mooy taux de reproduction mooy nit ku nga xam ne dafa amee feebar bi. Mm. dina infecter deux à trois personnes. Mhm. mais bu ñu xoolee je pense que après il faut ñu xool au niveau des pays africains. suñu taux de reproduction ñun xam naa du deux à trois personnes. parce que da gis <laughs> nit ku nga xam ne rek. Mhm. moo mën na infecté parce que ñoom seen taux de reproduction peut deux à trois la parce que finalement benn nit bu amee feebar bi il va et en contact avec cinq personnes maximum ñun ñun dañu am kenn ku. on a bi ñu remarqué suñu cas contact yi. waaw tey cinquante quatre par nos services donc ça veut dire benn nit benn malade mën na am moom ci kese moom rek cinquante contact juróom fukki nit yu mun la voilà euh, donc ci ñu am na ñi nga xam ne dañuy feebar. Mhm. donc c' est pour ça Sénégal jël stratégie moo tax man au début ma optimiste parce que dama me dis que euh, cas contact yëpp ñu ngi leen jël am fu ñu leen ber kon contact boobu du amaat beneen contact même bu positif du amaat beneen contact. Mhm. mais euh, cas contact yi ñu cas yu mu cas communautaire bi mooy problème bi. parce que léegi da nga optimiste woon. sa yaakaar dafa xaw a commencé di. non dama optimiste woon parce que dama ne sama biir xel cas importé yi du amati. waaw parce que tëj nañ frontières yi. Uh-huh. ma ne cas contact bu am am na fu ñu ko teg donc sama cas contact boobu du amaat beneen contact. même uh-huh. moom bu feebaree dinañ dinañ ko faj mu wér mu jeex. waaw mais don bi moom mooy cas communautaire. cas communautaire mooy ki nga xam ne day jékki-jékki amee feebar bi xamuñ fu ñu ko jëlee donc kooku noonu avant ñu koy identifier mhm. moom lawale na feebar bi ci dëkk donc bu ñu waxee cas communautaire boobu dinañ ko identifier vingt cas contact moom ci boppam xamuñ fan la jëlee feebar bi ñaar fukki nit dinañ ñu ànd ci moom waaw mën na mën na ëpp par exemple bu dee cas communautaire boobu moom dafa dëkk kër gu nga xam ne wala wala famille këru famille wala jot naa dem fii fële ñu répertorier ñu ne ah moom de cas communautaire bi am na cinquante contact sans compter que moom avant ñu koy identifier feebar bi c'est vrai que le plus souvent bu ñu xamee nit ki feebar la dañuy xool durant 48 heures précédents yi fan la jot a dem. Mm-hmm. pour ñu mën a xam exactement cas contact mais du ñàkk am na contact yi nga xam ne dañuy rëcc contact boobu noonu. dina nekk tamit un prochain cas communautaire. léegi lan mooy de lan mooy kii léegi ce cas là ce cas communautaire la ça veut dire que aujourd'hui toute personne entre guillemets est mën nañ wax na ne que ah kii mën na am Covid. ku ci nekk cas suspect nga léegi. voilà ku nekk voilà nekk c'est un cas contact laay wax. contact waaw ku nekk. ku ci nekk ci askan wi cas contact. voilà léegi yow soo jàppee ne yow ku nekk ki nga xam ne moo nekk sama kanam ah wala ki nga xam ne dajale naa ak moom. Mhm. peut-être que moom cas contact la benn cas communautaire xamu xamul xamagu ko. effectivement kon léegi man ça veut dire que samay matuwaay dama koy jël pour ñëpp dama koy jël tout le temps à tout moment. ba pare nag respecter mesure barrière finalement j'ai l'impression que population bi dañuy wax mesure barrière mesure barrière dañu dem ba euh, dégg ko ba dañ koo mujj tàmm sax dañ xaw a lambal waaw waaw que loolu rek moo ñu mën a nee nañ virus bi nan nga koy amee par voie nit ki bu sëqatee nit ki bu éternuer bu tisoolee euh, nit ki bu nekk sa kanam donc yow man nit ki sëqat na tisooli na yor naa sama masque wala mu wax gouttelette yi génn voilà wala mu wax gouttelette yi génn mais man yor naa sama mask nee tamit ah feebar bi peut-être dinaa dajek nit mun naa dajek nit amee feebar bi te du ma wàll lu tax parce que hmm. bi ma dajee woon ak moom man respecté woon naa samay mesures dinaa nekk certes cas bu ñu ma répertorié mais man jotuma wàll. du ma développé bi du ma développé feebar bi que bi ma nekkee en contact avec le hmm. dama jëloon samay matuwaay cest diir dire bi ma ko nuyoo ba pare déjà nuyu bi dañ koy dañ koy bàyyi mooy nuyu ak loxo. jeex na euh, euh, bu ñu jàmm santé ba pare. déjà joxuma ko woon loxo donc loolu génne naa benn ci contact ak moom. Mhm. lépp après samay loxo quest que j'ai fait de mes mains c'est sûr que saay bu nekk maa ngi raxas samay loxo je vais revenir sànq kenn ki dafa ne. Euh, feebar bi dañu war xam ne ñun amuñu moyen. waaw peut-être pour jënd eau de wax na loolu sax. voilà pour jënd eau de mhm. nañ ma bàyyi eau de javel nañ xanaa que ñëpp am nañ saabu chaque jour bu ñu xëyee. dañuy sangu 150 defe defe naa sax. saay bu ñu xëyee dañuy sangu. le savon virus bi. virus bi gaa lëmb na dëkk bi mais virus bi heureusement dafa sensible. Mhm. dafa sensible de sur mun savon li ñuy wax dafa am euh, enveloppé ci médecine virus enveloppé dafa nekk virus yi nga xam ne dañoo fragile. Mhm. donc saabu set lay bañ daal. waaw saabu. Mhm. ki nga xam ne ñëpp dañuy sangu tous les jours. nañ jënd saabu. boo amee saabu da nga raxas sa loxo. li ma expliqué yëpp jëlal nga def sa ndoxu saabu bu dee yow amoon alcool pour nettoyer sa portable ah jëlal ndoxu saabu nga nettoyé raxasal say loxo nee naa sànq sama sama caabi yi au lieu ma nekk di leen kii caabi yi dama koy xooj carrément ci ndox ak saabu sama portière bunt bi ma raxas ko également ah, ma fomp ak lingette bu amee saabu mhm. ah loolu saabu bi je pense que tamit euh, ah dina gën a yomb ci poche askan voilà dina gën a yomb ci poche askan bi bëgg naa ñëwaat tamit ci dara mooy euh, problème mu masque yi waaw gis nañ ne ñëpp ngi taa ci euh, masque yi mais bu ñu fàttee bu ñu fàtte raxas loxo yi parce que kon feebar bi transmission bi par respiratoire la par gouttelette la moo nit bu sëqatee mais bu ñu fàttee contact c'est-à-dire que yow say loxo mi ngi yor virus bi cest à que dem nga euh, yéeg nga euh, def am na loo def ba virus bi mu ngi ci say loxo waaw nga yor sa masque parce que c'est difficile aussi nga toog toute la journée laaloo sa bakkan wala nga laal ah. bët wala nga ah. laal sa booxu tuuñ exactement c'est difficile c'est ça c'est difficile il faut dire la vérité waaw euh, mais li ma doon bëgg ñaax ak seen bu ñu fàtte raxas loxo yi Mhm. parce que sa masque boobu ngay teg noonu bu dee sa loxo bi dafa amee woon virus ba pare dangay ngay sa masque te gis na nit ñi ni ñu utiliser masque dañuy yor masque jékki-jékki ñu wàccee ko teg ko ci baat bi. waaw wala sikkim bi noonu nee naa ko teg ko ci sikkim bi. nee naa ko masque yi du cravate. Mhm. nañ ko bàyyi ci kaw walla nañ ko bàyyi carrément. <laughs> waaw <laughs> nañ ko bàyyi carrément ci kaw euh, ci kaw bakken bi. Mhm. Euh, sa masque boo ko xasee ba teg. sa masque boo ko xasee ba teg. vraiment su dul nécessité bu ko génnee. amul teg génne teg génne ah damaa bëgg wax ma génne masque bi gis nga ñuy def émission bi ba léegi génne ma suñu masque yi. waaw te dañuy nag masque yi wax ne la dañuy xaw dañuy étouffé. waaw loolu dëgg la souffle. ça c' est vrai ko takkee di wax. waaw ça c' est vrai que ñun de fur et à mesure ñu ngi commencé. Euh, ñu ngi koy tàmm euh, ñu ngi koy tàmm. Euh, di di kii donc ñu respecter la distanciation sociale. Mm-hmm. boo xam takk masque bi dama koy gis yenn saa yi. Mm-hmm. nga gis ko takk masque wala ñeneen ñi takk masque mais dañuy. seen distance dootuñ ko respecté. pour ñoom takk naa masque bi daal protégé wu naa. exactement donc ça veut dire que finalement mesures bu ñu ci jël benn bàyyi ci benn. bu ma takk masque loxo yi fe euh, euh, euh, suyee. Mhm. bu ma takk masque ma ne ah léegi parce que takk naa sama masque léegi damay diminuer distanciation sociale bi. waaw lépp la ñu jël. Mhm. ñu def teg ko pour feebar bi mën a génn si dëkk bi. d' accord paquet de jeu la daal bu ñu. waaw respecté. Mhm. ay ca professeur ñu ànd dem service commercial balaa ñuy dellu si En cette période de pandémie et de restriction des déplacements, il est important de rester chez soi tout en continuant à régler ses opérations. Avec Orange Money, c'est possible. yow mi door a am compte Orange Money njëkkal def jazz jazz ngir changer ce code secret su loolu weesoo nga dal di dem ci www.orange.sn slash orange tiré money ngir xam lépp ci Orange Money kalpe bi mënee fu ne moo xam transfert d'argent paiement de facture paiement marchand wala sax achat de crédit di nga xam lépp li nga soxla ngir mën jëfandikoo sa compte Orange Money ci ni mu gën a yombee Rendez-vous sur www.orange.sn slash orange-money pour retrouver toutes les infos relatives à Orange Money pour optimiser l'utilisation de ton calpé, surtout en cette période. En plus, l'application est disponible gratuitement sur iOS et sur Google Play. bu leen xaarati nañu ñëpp yokk seen xam ci Orange Money calpé bi wóor te yombal seen dundin nañu àndandoo boole xol yi. Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. En ce mois béni de Ramadan, faites tous vos paiements sans aucun contact et sans risque grâce au paiement marchand avec Orange Monnaie, une solution sûre pour se protéger et protéger les autres. Payez toutes vos courses chez nos partenaires agréés en utilisant leur code marchand. Vous pouvez aussi payer chez certains partenaires disposant du QR code en scannant celui-ci grâce à votre application Orange Monnaie. Un paiement sûr, rapide, sans contact de mieux Téléchargez gratuitement l'application Orange Monnaie ou sur Google Play. nañu àndandoo boole xol yi bon Ramadan avec Orange Money. Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. orange. sama waa jàngi noonu de. noonu de Malaysia. defal ma kaasu kafe foofu. xaaral ma yokkal la ci meew Gloria bokk. déet defal café noir rek. sama waa ji Gloria laa tegal. poos bi moo diisul nag. ñaar fukki dërëm kese lay jar. yaa ngi may door wax lu ma neex na gani waaye li kañ la fi. xanaa Gloria bu ndaw bi. bi mu dugg see ci biir réew mi. kon boog. Ah. sotti ci lépp. yaa wax lii. nekk balaa neex. Ah. ah meew Gloria waay. <laughs> <laughs> na res ak jàmm ak Gloria bu ndaw. seen meew bi ngeen taamu. léegi am na sachet. ci ñaar fukki dërëm dong. Gloria amul moroom benn la ak wari ci weeru koor wi wari tax na seen lépp a yomb ak wari toog leen seen kër mën di yónnee xaalis fay seeni i facture jënd crédit ci seen téléphone te du ngeen bouger wari indil na leen lu bees ginnaaw jees 20 21 jees application mobile bi ak page web bu wari léegi mën ngeen am wari ci whatsapp bi ak ci messenger gaaw leen gaaw dem ci wari point com slash whatsapp ci koor gi wari da leen di jox suukaru koor bu rëy ñaar fukki junni 100 000 francs koy gagné yomb na def leen seeni transaction ak Wari ci whatsapp bi messenger ci dièse 20 21 ci application My Wari wala ci com Wari suñu yëf la Wari ku nekk ciy gis boppam Ramadan Moubarak. Tes services sont fournis par les banques et les institutions financières partenaires de Wari. Plus d'infos sur www.wari.com/partenaire. pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Val d'Afrique moo leen di may seen émission allo docteur. Euh, ñi ngi ak suñu émission euh, allo docteur di ko wéyal sànq ñi ngi doon ànd ak defe naa soxna Bint Bokum bu centre des opérations d'urgence sanitaire su dee mi ngi ñuy dégg su ma nee duggaat ndax sànq il fallait que ñu ànd ak waa ministère santé ngir def point Covid ak docteur Marie Khemesse euh, Ngom Ndiaye ci 33 825 18 30 kon ligne bi daal di nañu koy ubbiwaat ànd ak professeur Louise Fortes asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Euh, sëriñ bi na nga def. man la Cheikh Ahmed Tidiane bi. aha ñu ngi leen nuyu Cheikh Ahmed Tidiane. ñu ngi bu baax lay xadi. Mhm, ñu ngi lay fay. di sargal di sargal sargal bi. Mhm. di ko masawu coono vraiment sonn nañu trop. Mhm. Euh, ya man maa ngi maa ngi intervenir ci archibaldiyat bi le produit la le produit bi jógee Madagascar lu ñëw bi waaw maa ngi ñaan autorité yi ñu tey ñu tey ci utilisation bi parce que produit bi la boo xam ne produit bu bees la amuñu ko produit biologique la te am na jàngal buñ ci def ñun am na luñ ko observé jàngal bu ci def nee nañ ci tey boo OMS jàmbar ko ba pare recommandation bi ñëw si joxe ñu suivi ko. Mhm. ma ñëw aussi ci mbiru feebar bi ak population bi. waaw Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk. lu nekk lu nekk lu nekk ñoo ko bokk. te eh, war nañu mun mun a li ci war nañu mun a eh, eh, diversifier affaire bi seet bi ñi nga xam ne am nañ ci xam-xam. ñoo xam ne mun nañ dimbale malade yi ñu gis leen ñu ñu ñu jéem a dimbale malade yi man personnellement pandémie yi passé am na benn malade boo xam ne dafa am ak dëkkëram ak ay doomam yàlla même tim xam ne ne yàpp ak problème incha allah depuis bi ñuy defee traitement bi ba léegi ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu baxee à l'occupation ñu wër yàlla ak suma suma suma xarañte moo tax ñu ñu am loolu may may wax aussi ne euh, man je suis un euh, Ahmed. Ah. waaw dañuy xaw tere publicité bi ci wàllu woowu moo tax du ñuy waa ñi ngi ciy jéggalu ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñun ci suñu bopp sax ñu ngi jéggalu service commercial euh, ci li wax jooju jàll kon ñi ngi lay sant sa préoccupation incha allah docteur professeur dina si tontu. jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Ndour Euh, ci wooteem ñu xool ki ci topp kan lay doon incha allah ak euh, laajam may ko tuuti mu yegg si ci 33 825 18 30 ñu ngi ci wàllu coronavirus bi ànd ak suñu gan asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, sëriñ bi nanga def. ñu ngi sant yàlla bu baax. nga ñuy woowee fan. Caaroy. ñu ngi lay déglu. ñu ngi lay nuyu di la siyaare. ñu rafetlu sa liggéey di la ñaanal gudd fan ak wér. allahumma amiin. taxawaay bi rafet na trop di ko rafetlu. merci. yàlla yàlla dolli jàmm ji dolli xéewal gi. allahumma amiin. Euh, di nuyu docteur bu. Mm-hmm, di ko dalal. feebar bi nag xam naa ne dañuy ñaan yàlla rek yàlla mi fi di mu jëlee ko fi. Mm-hmm. metti na waaye ñu ñi nga xam ne ay taximaan lan. Mm-hmm. Euh, nga xam ne tout le temps ñu ngi ci risque yi. lan lan maanaam ñu ngi takk masque moom. ñu ngi takk masque mais ñu ngi sol gant ñu ngi moytu mais lan lan lan la gën a mën a def ba nga xam ne yàlla dinañu ci muccal daal loolu la ñuy wax ñu rafetlu eh, émission bi bu dee baax a baax. merci beaucoup suñu auditeur boobule ah, woote boori Thiaroy ah. di taximan 33 825 18 30 ñu xool kan mooy ñëw ak préoccupation asalaamaaleykum mu ngi egsi ñu xaar ko tuuti asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Euh, sëriñ bi na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax Adja. alhamdulilah. maa maa ngi lay nuyu di ziar El Hadj Touré Yaraax. El Hadj Touré Yaraax ñu ngi lay nuyu El Hadj Touré. maa ngi lay nuyu bu baax di ziar professeur affaire bi leer na naññ naññ naññ naññ naññ macha allah maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk ko wér yàlla yokk xam-xam. allahumma amiin. Euh, Adja maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay ziare bu baax euh, maa ngi nuyu waa Sud FM auditeurs ak auditrices yëpp. Mm-hmm. di ñaan yàlla jàmm si yal na yàlla defal jàmm. allahumma amiin yal na yàlla dakkal si kii eh, feebar bi jógee euh, mm-hmm. man lu ma doon laajte mooy cas communautaire. Mm-hmm. ak cas contact léegi man damaa defoon ne car cas rek la quoi dama defoon ne cas cas rek la cas communautaire ak cas contact bi yëpp cas cas cas la dama man man loolu laa loolu laa nga jàppoon waaw waaw mm-hmm. waaw loolu waaw laa jàpp xam man dama bëgg docteur bi non professeur euh, jàpp ci bu baax a baax mu gën a leer waaw waaw mu gën a leer. d' accord euh, bon man damaa defoon dañuy naan ne cas cas cas rek am na te suuf yëpp feebar bi rek la te euh, euh, coronavirus coronavirus bi dong la. Mm. n' est ce pas. d' accord waaw léegi ak masque bi di nga koy parce que di nga koy utiliser mais dinañ dinañ daal dañuy utiliser masque daal ñun ñii daal comme ça sama classe yi dañuy naan nag boo nee nañ ñoom utiliser ba nañu utiliser masque bi ñuy ko ci jiw bi ñuy teg ko ñuy def ko càkk ñuy def ko bi muy lan. <laughs> man gis man gis naa ko ci télé yi sax bon di defar léppam daal xam comme que da ngay yéen nii jaay jaay service nii kay moom da ngay yéen nii lépp comme ça pour ñu mun ko comprendre euh, ko daf ko def ci nopp bi muy lang xam nga loolu tamit encore sama classe moom boo doon yéen tamit yeete woon nii da nga leen di nelawal mhm. bon damaa bëgg daal ñëpp jàpp ci rek comme ça feebar bi jógee si jàmm ak salaam asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatulahi taala ko tontu si kanam tuuti suñu amaatee kenn ñu daal di taxaw euh, Pape Lay ci 33 825 18 30 ak euh, professeur Louise Fortes ñu ngi ànd ak Val d'Afrique asalaamaaleykum. salaamaaleykum. sëriñ bi na nga def. sant yàlla bu baax a baax. Mhm, fooy wootee. maa ngi wootee Sodida. Sodida. waaw ayca bisimilah. mu leen bëggoon a laaj daal. waaw. comme force de bu ñu nekkee di wax nit ñi nañ takk masque parce que des fois nga day ñoom takk ñu masque parce que loolu tamit du jur leneen. d'accord mhm. waaw ak masque tamit nan lañ ko war parce que des fois nga gis ko man masque bi na ko takk presque weer. waaw ñu leeraloon ci loolu euh, jërëjëf euh, sëriñ bi. merci beaucoup kon ñu daal di taxaw professeur daal di demaat ci tontu yi njëkkee ci Cheikh Ahmed Tidiane Ndour euh, wax na ni wax ci wàllu Covid organique organique mooy garab gi ñu ne waa Madagascar ñoom moom la ñu jàpp ne moom mooy war mën a faj. Euh, feebar bi euh, nee na mu ngi ñaan euh, ñu def ci ndànk ndax garab lu ñu war a saytu la xool ko balaa ñu koy jël di ko jox doomu aadama yi déjà ndax jot nañu suñu commande bi professeur wala egseegul ah loolu moom mënuma ci tontu. Mhm. parce que suivre ma arrivé wu commande bi. d'accord léegi man tamit li muy partagé man tamit moom lay partagé. Mhm. dama bëgg quand même wax déjà benn leeral ah. waaw du plante bu nga xam ne ñu ngi koy door a xam. Artemisia mm-hmm. annua xam nañ ko bu yàgg depuis presque euh, dañ koy utiliser moom la ñu mm-hmm. utiliser une partie de la plante Artemisia annua pour euh, traiter le paludisme. sibiru euh, sibiru. waaw maintenant problème bi la question question bi mooy est-ce que plante bi mën na faj. feebaru coronavirus bi. Uh-huh. est-ce que mën na ci faj feebaru coronavirus il est vrai que. Euh, waa Madagascar génne nañu ay données en tout cas wax ne ne que traitement bi c'est efficace. Mhm. Euh, mais en terme de nu ñuy wax médecine fu mu ne dañu nekk jamono bu nga xam ne lépp lu ñu wax ne ne que war na efficace na duñ ko mën a fëlëx carrément. déedéet mais tam mënuñu ko tam jël carrément lu tax mënuñu ko fël euh, fëlëx carrément parce que feebar bu bees la. donc ñu ngi jàng de plus en plus. Mm -hmm. au début hydroxychloroquine. bu ngeen fàttaliku bu baax am nañu ko njëkk wax uh-huh. après ñu nem ba ci biir ñu ne noonu non non hydroxychloroquine te fu mu ne moom la ñuy utiliser moom la ñuy jël nii mais toujours dafa am en terme de médecine dafa am preuve bi nga xam ne da nga ko war a apporter preuve scientifique parce que bu ñu fàttee euh, lu tax euh, booy jox garab euh, malade nga tu es responsable mm-hmm. parce que aujourd'hui Artemisia annua bi amagul autorisation pour pouvoir être utilisé dans cette indication là pour mën a faj coronavirus. Mhm. donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut d'abord faire en tout cas des études au minimum quelques études pour ñu mën a wax ah c'est efficace. mais am na voilà des recherches peut am na ñeneen ñuy wax ah. amuñu jotu recherche. waaw parce que dañoo yàkkamti. <laughs> waaw voilà amuñu jotu recherche dañoo. yàkkamti on utilise mhm. mais tam bu ñu fàtte tamit on utilise peut-être mën na am yenn effets secondaires yi nga xam ne duñ ko mën a contrôler. gis naa ne Sénégal am na benn structure boo xam ne da ko doon jaay mais foofu ni rupture na. Hmm? jënd nañ ko ba mu jeex ñëpp a jënd nañ ko ba mu jeex ndax moom laa am du moom. ndax moom laan du moon ki koy jël est-ce que mën na am effet secondaire secondaire waaw am effet secondaire est-ce que am na suffisamment de surveillance y'en a qui le prenaient nag dans le cadre parce que c'est une plante yu am yeneen vertu bien sûr ñi nga xam ne dañ ko daan jël dans cadre là mais dama li may ragal rek mooy euh, nit ñi di ko jël euh, bàyyi mesure de protection yi defe ni ah man de man voilà man de moom c'est c'est bon man naa ngi jël garab bi maa ngi ah donc léegi mu bàyyi bàyyi masque bi bàyyi day day raxas loxo bi je préfère ñu investir ci cent cinquante francs pour jënd saabu raxas suñu loxo. Mhm. masque plutôt que autre chose. en tout cas loolu man tamit xam naa ne voilà utilisation bi euh, il faudra que Sénégal euh, Sud Sénégal da koy adapté euh, ñu définir ko. e loolu ministère de la santé mi ngi fii autorité sanitaire yi. ñu ngi fii pour pouvoir décider de cela. Caaroy taximan la nee na ñoom xam na ni dañu nekk ci risque mais moom ci boppam nee na mi ngi takk masque mi ngi takk gant ay gant am ndax neen am na leneen lu ñu mën a defaat yokk ko ngir yokk mhm. kaaraange seen bopp merci maa ngi koy remercier ci question bi wax na dëgg de taximan moom mhm. waaw ah taximan de bu sañoon moom yéeg wàcc rek la waaw yéeg wàcc loolu moo koy arrangé moo mën a am euh, dep lu mu dépensé loolu mooy liggéeyam mhm. euh, transporter nit ñi mais nana du xam kan lay transporte loolu moo tax ministère de la euh, transport génnee na ay directives pour ñu mën ko respecter waaw pour véhicules yi pour diminuer nombre de personnes yi nekk ci biir Euh, port de masque benn affaire bi benn laay njëkk wax na ci am na kenn ku ci wax mooy ki intervenir ne waaw dafay gis nga xam ne masque yi dañ koy teg il faut que ñun ñuy sol masque. mais ñuy mm-hmm. sol masque yi correctement. mais li mu koy laaj ñaata masque la moom ci boppam moom ñaata masque la amee. yor déjà la yor. bu wàccee liggéey ma masque bi lu mu ciy def. bu dee masque jetable la te da koy sandi mais xam naa ne ñu bëri masque jetable tam dafay metti. Mm-hmm. du ñu jotee de professeur. donc masque lavable lañu am. mais est-ce que ñaata masque la yore ñaata yoon lay euh, bu dee am na euh, masque ñaata est-ce que masque bu wàccee est-ce que da koy fóot wala day bàyyi masque bi ci oto bi bu xëyee liggéey rek. takkaat tak takkaat masque bi. donc première question. donc loolu mooy attention masque boo ko utilisé wul bu baax sa masque euh, lavabo boo ko fóotul sa masque lavabo tam boo koy sol te sa loxo setul mën nga infecté wu. Mhm. mu jaaxal la trop te yow daa ngi doon utiliser. fu ma jëlee jàng. fu ma nañ ma bàyyi gants yi. Hmm. gants lu ñu doyee gant. si yeneen luñ ko dul doyee nag professeur déedéet soxla wuñ ko gant kii soxla gant mooy ki nga xam ne dafa nekk en contact avec les malades. kooku moom moo war a sol gant mais yow nga xam ne yow personne lambda jor nga say loxo parce que li may ragal boo yoree gant da ngay ne def je si protégé. Mm-hmm. nga jël say gant di laal kanam di laal bët di laal bàkken. effectivement alors que yow say gant te bu ñu fàtte. yow infecté na fa. la la infecté na mais boo yoree say gant est nga raxas sa loxo. doo kuy raxas loxo avec des gants personne ne pense à kenn du xalaat jël say gant di sa raxas say loxo alors que say loxo bu nekkee loxo yi neen wax nañ na ne saa yi boo xalaatee ah nga daw dem si loxo donc boo moytul gant boobu ngay takk moom mooy nekk source de contamination parce que damay waaw parce que gis ci circulation nit ñaa ngi jaay gant sa gant boobu noonu est-ce yëpp takk ko di nga laal lu nekk virus bi nekk ci nga tegaat ko ci oto bi ba pare gant boobu noonu mooy nekk source de contamination nañ bàyyi gant yi te bi moom ngay laalaale volant nga bàyyi virus bi ci volant nañ bàyyi gants yi di sol masque yi te masque bi bu ñu amee ku nekk na nga am au minimum deux wala trois masques bu mënee nekk mhm. saa yi boo wàccee nga fóot masque bi jël beneen masque bu bees koy fóote nga ak ndox ak saabu hmm. ah. da ngay fete wala da ngay xocc biir rek da ngay fete nga fete carrément avec de l'eau et du savon nga ra nga on a dit lavable d'accord donc ça veut dire c'est possible de le laver xanaa mooy yu nekk tissu wala voilà mooy yu nekk yi mooy Euh, répondre na si normes yi aussi. waaw c' est vrai que ñu ngi wax waxu norme ñu mais c' est mieux que moo gën moo nen moo gën nen parce que da ngay xool instant yi c' est sûr que masque yi war na am yenn normes yi euh, instant am na am nañ benn certain besoin bi nga xam ne est ce que am nañ pour mun a contrôler jox les masques aux normes aux normes donc à nañ bañ a mas euh, takk masque bu nekkul aux normes moo gën bañ a sol masque du léegi boo solee masque tamit il faut mu am quand même le minimum de norme. Wow. minimum de norme mooy lan. Hmm. ah masque moo xam ne day muur gémmiñ kese bàyyi bakkan loolu du masque. boobu moom euh, boobu moom du ma du moom boobu waruñu ko utiliser. <laughs> parce que nee nañ doomu jàngoro bi day jaar ci bakkan jaar ci gémmiñ. Hmm. donc il faut que le minimum de norme masque bi il faut mu muur bakken waaw il faut mu muur gémmiñ wàcc ci suufu menton. amul demi masque tamit nga xam ne day ñëw di euh, euh, faut mu wàcc ba ci menton bi ci suufu sikkim bi. waaw. loolu mooy au minimum je pense que masque bi war na utiliser norme yooyu. ñi def visière gis naa ko. mooy ñi def genre ouvert comme policiers yi su ñu nekk au front yooyu ñuy takk yooyu tam gis mhm. naa ko gars yi di ko def léegi mais li ma ci jaaxal mooy euh, amul protection ci suuf est-ce que efficace na finalement. non euh, booy takk euh, visière il faut nga sol waaw ah, au minimum nga def masque chirurgical bi. il faut masque jiitu waaw au moins masque jiitu. Uh-huh. il est vrai que nañ waxante dëgg. waaw mën na efficace ah. même boo entre guillemets boo solul euh, masque mais li l'idéal mooy nga sol masque ñun ñi visières yi. pour ñun ñi nga xam ne on on contact avec des malades dañuy sol masque teg visière ci kawam. mais l'avantage de la visière c'est quoi ku sol visière doolaal sa bakkan. Mm. doo laal ah, sama xel dëgg verre la doo ko laal ku ku ku sol visière say bët c'est protégé. ku sol visière doo laal sa gémmiñ. Mm-hmm. mais du tee nit ki buy sol bu takkee visière na takk masque mais balaa ñuy investir ci ay visière te ñoo investir ci saabu rek. <laughs> ak ay masque lavable yi nga xam ne ah, saa ah, waaw parce que tamit xam nga euh, instant yi c'est-à-dire xeex bi dafa war a nekk xeex communautaire voilà waaw moom moom laa la doon wax sànq ma ne ko combat bi combat bi jeex na combat bi nekkatul ci ñun. ñun li ñu mën ñu ngi koy def dem nañ ba ñu ngi faj ba amatuñu fu ñu teg maladie. ba léegi ñu ne maladie am na ñi nga xam ne dañu ñëw hôpital ñi nga xam ne dañu leen jël en charge donc li nga xam ne moo ñu dese mooy communauté bi. xeex baa ngi suñu loxo. mu ngi suñu loxo parfois boo déggee ñu xam ah waaye feebar bi amul waay. waaye docteur yi dañuy kii rek dañuy wax rek ko benn waay bu ne sama yaay euh, double fracture la amoon amee amul woon feebar bi. hôpital ba mu dem fa mu dem bañ ko jëlee yóbbu ko fa contre fa la jële feebar ba ay waay loolu la wax. Euh, nañ nañ kii nañ nañ nañ xalaat ñi nga xam ne ne que euh, feebar bu mu commencé ba tey nelawatuñu euh, naanatuñu nekk ñu ak seen famille. Mm-hmm. seen famille c'est sont en risque parce que saa yi bu ñu xëyee ñu ngi nekk en contact ak maladie. Mm-hmm. feebar bi moom buñ ko laam-laamee ndax mi ngi fi wala bu mu nekk fi. parce que bu nga xam ne bu ñu demee ba ne amatul laam laame loolu mooy yow mi ci sa bopp yow mi ne existé wul boo moytul gis nga ko nga xam ne sa mbokk bu la bu mu faat wala leneen. te ñaan ñu yàlla ñaan ñu yàlla euh, yegg foofu noonu. vraiment waaw. Euh, El Hadj Touré euh, benn tonto laajam bi tontu nañ ko mooy ci masque yi cas communautaire kaa contact moom dafa jàpp ne cas la rek professeur. waaw wax na dëgg cas cas la. c'est-à-dire muy communautaire muy contact. kaala daal yaa ngi ci biir kaala daal ci biir la nekk. waaw kooku mooy cas boobu noonu il faut ñu jël ko en charge. Mhm. cas boobu noonu il faut ñu isoler ko. cas boobu il faut ñu xool ñan la nekkaloon en contact. waaw mais lu tax ñu def différence boobu noonu. Euh, entre cas communautaire ak cas contact parce que cas communautaire dafa am euh, sur euh, ci ci wàllu faj bi ci wàllu comment dire xool ñan la nekkal en contact dafa am solo parce que cas communautaire mooy nit ki nga xam ne dafa amee feebar bi te xeen xamul fum ko jële mm-hmm. loolu mooy wane ne donc virus bi parce que ki nga xam ne cas contact kooku leer nañu ne. diw mee la ko jëlee ne diw mee la ko jëlee. waaw te de boo boo xoolee chaque fois bu ministère waxee suivi par nos services ça veut dire que contact boobu identifié woon nañ ko pare. ñu ngi ko doon saytu di xool ah parce que dañ leen di njëkk a contrôler bu ñu leen yow da ngaa nekk contact premier jour ñu contrôler la. waaw bu ñu ci tollee ci fukki fan ak juróom. Euh, euh, treizième jour fukki fan ak ñett ñu contrôler la waat la xool ndax da nga négatif ba tey mhm. kon cas contact boobu noonu maîtriser nañ ko. waaw mais cas communautaire xamuñu fu mu ko jëlee. Hmm. xamuñu ku ko kii. donc moom sax moom puisque moom nekkul en contact ak kenn peut-être entre temps feebar bi moom ci si boppam cas communautaire boobu. dem na circuit am na. fu mu dem doxi soxlaam doxi ay soxlaam ak yooyu yëpp. loolu moo tax cas communautaire yi man nee naa tant que ñu ngi am entre guillemets ay cas contact. du ma a tiit xaw a tiit parce que dama ne cas contact ah kooku identifié woon nañ ko pare ñu ngi ko doon topp. waaw identifié woon ñu ngi na fu ñu ko tegoon. amatul ñeneen ñu ko ñu mu ñu xamuñu fan. communautaire yi ñaata lañ toll nii à peu près ci xayma buñ ko doon xool tey. ah sànq de instant yi jàpp ko. d' accord waaw mën nañ ko xool après. d' ma le nombre de cas communautaires yi en tout cas man bu may déglu statistique yi man cas communautaire yi ñoo may gën a. intéressé ci bàyyi xel daal. waaw parce que ma ne cas am problème contact la xamoon nañ ne que moom contact la ñu ngi ko doon suivre. Mhm. mais cas communautaire kenn xamul fu mu jógee kenn xamul fu mu fu mu kii. fu mu fu mu fu mu bànqaas. waaw fu mu bànqaas te cas ay yeneen contact wala tamit cas communautaire boobu dina am moom ci boppam. dina am yeneen cas communautaire yu mu indi parce que moom entre temps que moom xamul dafa feebar. balaa ñu koy xam ne moom dafa feebar am na ñeneen ñi mu loon en contact. contact et nga fàtte ko sax nga fàtte ko. ba ñooñu fàtte ni sax nekkoon nañu moom exactement. Mhm. d' accord euh, force de l'ordre yi dul takk masque te nekk itam ci mbedd mi. yéen a ngi leen di sensibiliser ci boobu. masque daal moom ñëpp la. amul force de l'ordre kenn mënu ci rëcc amul professeur laak. Mm. virus bi xamul loolu de. <laughs> am na ñuy wax ne virus bi dafa démocrate. c'est un virus qui est démocrate bàyyiwul benn couche sociale gis nañ ci yenn dëkk yi euh, premier ministre yu infecté. gis mm, nañ ay mm. ministre yu infecté. virus bi xoolul. sa niveau social xawal yow fan nga toll. virus bi ñëpp la donc tout le monde. doit porter un masque, obligatoirement y a pas de dérogation. utilisation masque bi dafa am durée. waaw yoon solidaire ah waaw am na dure euh, en tout cas bu dee en ce qui concerne masque lavable yi même pas pas durée euh, masque lavable yi. yi euh, masque pas yi ñuy raxas euh, masque dañ ne masque boo ko defee. Mm-hmm. par exemple jetable yi laa bëggoon wax. waaw durée bi c' est de trois à quatre de temps bu dee masque ffp boo ko takkee huit heures de temps la da ko war a sànni. <laughs> au bout de trois heures quatre heures de temps par exemple mooy man ak yow bi ñu takk mënuñu ko recycler parce que yi kenn mënu ko fodda ça veut dire que bu ci kanamee hmm. maa ngi génn sama kër diiru neuf heures waaw donc fii yëpp onze heures il faut ma jël masque bi ma sànni sol beneen loolu mooy wane ne kanam difficulté que masque lavable bi moo gën moo gën a jar moo gën a jar comme sax am na gis nañ tamit ñuy gis ne dañuy jël masque jetable yi di ko recycler gis naa sax ñuy suivre ay da nga koy def ci kanamu ndox buy bax yooyu yëpp nañu sarax masque jetable am na tax ñu tuddee ko jetable dañ ko sànni. masque jetable waaw professeur yow ki nga xam ne mi ngi manipuler masque yi doo xam nan lay précaution lay jël masque jetable yi c'est pour jeter bu defee ñetti waxtu maximum ñetti waxtu la ñuy wax. Mhm. bu defee ñetti waxtu da nga kaa war a changer yow mi nga xam ne amoo masque jetable masque lavable nga am bul fàtte ne que bu dee da yor benn masque l'idéal je pense que au minimum nga am deux masques yi nga xam ne da koy changer. ci journée bi boo wàccee bu ko fàtte fóot. te boo ko jëndee it banaan ko utiliser fóot ko. ex bonne bonne remarque très bonne remarque boo ko jëndee parce que kii jaay masque yi. ki ko doon defar. xamuloo kenn xamul kan moo ko kii woon. waaw nañ ba pare maa ngi ñëwaat ci gants yi nañ bàyyi gants yi <laughs> nañ bàyyi port de gants yi. nañ nan la dañ. <laughs> waaw waaw. <laughs> professeur d'accord léegi euh, suñ doon def profilage malade ci tey jii. Mhm. est-ce Euh, dinañ ci mën a jànge euh, professeur ci seeni présentation clinique ku ci nekk ni nga màndarga woo mhm. xëy na ñu mën ne kat gis nañu ne ci âge tel euh, màndarga yi ni lay demee ci âge yi gën a avancé complication yi fa la féete ci âge bii wala ci jigéen ñi communautaire ba fa la gën a bare est-ce que commencé ngeen di jàngat ci bor boobu Euh, il est vrai que statistiques yi euh, dañ koy joxe régulièrement euh, au niveau du ministère euh, de la santé. Mm parce que instant yi nii ba pare nag en plus de sa ministère de la santé dafa mettre en place euh, benn logiciel bu nga xam ne dañ koy remplir au jour le jour ñoom même au niveau du ministère à temps réel. Mhm. dinañ mën a xam ñaata nit ñoo nekk ci centre yi ñaata ñoo hospitalisé ñan ñoo amee lii ñoo amee loolu. waaw effectivement bu ñu loolu day gën a tax ñu xam. Euh, réajuster exactement réajuster communication bi communication bi par exemple les cas communautaires. Euh, dañ doon au début. Mhm. bu ngeen fàttale ko bu baax bi ñuy wax ñaata cas daanañu woon wax ne cas yi fu ñu jógee. déedéet lu tax ñu commencé di wax fu ñu jógee. Mhm. c'est que pour ñu ne ah man mi dëkk ñaari tali de man mi dëkk parcelle de man mi dëkk Sacré Cœur de man mi dëkk fii man mi dëkk fële man mi dëkk Mamel man mi dëkk Almadi ah nee nañ am na fi cas communautaire. donc je ah, voilà pour alerter pourquoi on a changé la stratégie en ñuy préciser léegi cas yi fu ñu jógee mhm. je pense que benn instant tamit commencé woon nañ ci kii di di di ñaax ñi nga xam ne ils sont en contact les ouvriers les taximans les transporteurs ñi nga xam ne mhm. ils ñoom seen ils ont ñoom seen contact ak nit ñi moo gën a bëri c'est pour que ñu renforcer effectivement plus ñuy xam répartition ñan ñan ñoo feebar fan la ñu jóge aujourd'hui dañuy gis ban type de contamination la ñu am ban type de contamination la def ay croisement pour ñu wax ah attention hmm. cas communautaire yi seetlu nañ ne que euh, euh, kii jaay marché la c'est un commerçant seetlu nañ ne que c'est un transporteur ci genre quartier yi lay nekk exactement mhm. parfois c'est vrai que nit ñi dañuy bañ stigmatisation dinaa ñëwaat ci stigmatisation bi mhm. il faut faire attention am na ñi nga xam ne finalement lu tax ñuy nekk cas communautaire parce que dañoo peut-être yow da nga nekkoon en contact ak kenn yow leer na ne dégg na dégg na dañ ko hospitalisé. Mm, mm, mm. mais nga nëbb ko. laqatu parce que nga laqatu parce que yow da ngay ragal parce dañuy xool ah. bu ma nekkee fii bu ñu ma ñëwee jël si sama koñ bi nii naa nale dox ki dox ki démb de am na ci ñuy doon interroger fii waa ji nee na <laughs> dañ leen defoon quarantaine waaw na ba ñu ñibbisee ni cëpp ka ka leen njëkk woo dalee ko asan quarantaine xam nga kon mi ngi stigmatisé voilà sa c'est la stigmatisation et stigmatisation moom bu amee la ko woowee gis nga stigmatisation bu amee nit dina feebar du ci wax dara noppi continuer law feebar bi ci dëkk bi yëpp nit ñi di kaa communauté nit ku amee feebar corona bu di eh, bu buñ ko fajee am na diir bu nga xam ne virus bi du nekkati ci organisme bi mhm. bu boobaa nit ki il est guéri comme ni ngay guéri les grippe wér na te li ciy faatu sax wax dëgg yàlla waaw bëri gis nañ ne waaw bëri bareegul waaw bareegul ñu sant yàlla parce que ñu xoolee yeneen dëkk yi tam lu tax yeneen dëkk yi dese yi bëri noonu parce que seen population amuñu même style de population ñun suñu population pour alhamdulilah population jeune la alors que foofu noonu sujet âgé yi gis euh, dans les maisons de retraite ay tout presque plus de cent personnes mais ce sont des sujets qui sont âgés mhm. loolu mooy kii bi effectivement je pense que plus ñu xam répartition épidémie bi dinañ mën a gën a réajuster suñu mode de, de de communication et également de prévention prévention d'accord li ñu desee euh, professeur barewul defe naa à peu près quinze minutes la ñu jéem a xool ndax ligne bi dinañ si am ñaar wala ñett yu ñu euh, daal di tontu ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum. madame Noor euh, ñi ngi sant baax sëriñ bi fooy wootee. ñaari tali laay wootee. ñaari tali euh, ñi ngi day déglu waaw. moom itam safaru taxi laa. Mhm. mais itam gaa yooyu may dégg madame bi naa baaxut xam na gaa yoo xëy baax na. Mm. parce que am na yu kaw si moo baaxut yi nga xam ne day dañ koy ne kaw si bi day nekk sa loxo yi boo gaa baaxut. Mhm. léegi itam may digg itam ci. yan moo baax à ton avis. Euh, gaa yi nga xam ne dafa am dañ koo defaree wëñ yooyu ñoo baax. Mhm. d'accord waaw yooyu nga xam ne da koy fóot baax na mais yi nga xam ne kaw su la nga xam ne sa loxo day ñàkk mu ci mu ci xol yooyu baaxul waaw. Hmm. léegi affaire bi feebar bi may laaj tam ñi nga xam ne tam dañu am feebaru suukar ak feebaru tension nii ak feebaru. kii asma bi. waaw léegi ñoom nu ci war a def ci koor gi ak ak nu mu parce que tam dégg naa tam ñoom ñoom la gën a yàq tam dégg naa ko ñu koy wax. d'accord te tam euh, ñoo ñun taximan yi tam man damay gis tam ñoo xëy tam dañ leen di jàpp ci masque yi. Mhm. masque yi ñuy takk ma masque masque yi ñu takk ci ci bàcc kii ci ci sa jëmmañ mooy masque yi ñu takk rek. d'accord léegi tam dama ko laaj tam ban masque tam bu nga xam ne moom lañ def formation bi ak bu ak bi nga xam ne moom la ñuy wër di jaay nii yan moo ci gën a baax. d'accord waaw merci beaucoup. Euh, jërëjëf ñu xool ki ci topp suñu jugee ñaaxi tali ak suñu gan ñi ngi ànd ak Val d'Afrique di leen may seen émission 9h30 ba 11h asalaamaaleykum. waaleykum ñu ngi sant baax sëriñ bi fooy wootee. ñu ngi leen ziar euh, ngi delloo ziar fooy wootee sëriñ bi. maa ngi wootee ginnaaw raay si tudd Mamadou Sy. Mamadou Sy. waaw. ayca ñu ngi lay dégloo. waaw c'est dama bëggoon xam. Euh, parce que man dama tiit turu corona sax laay bañ a dégg man. <laughs> kon bu ko fi tudd. waaw man masque lavable laa yore. Hmm, d'accord. dama siy jënd diis. bu ko jëndee kon man damay liggéey ci affaire ginaar. bu ma ñëwee dama buñ ko fóotee ba ma pare. pour ma laal ko sax dama yore sama gel dama nga yëg pompe ba mu koy xet balaa ma koy masque dinaa ko toog bàyyi ba nga xam ne commencé na fenn bi ma soog ko sol. waaw léegi nag ndax ragal rek dama xamul ndax sel bi may def ci kii parce que souvent dañ ko repassé électrique bi day lakk wala xam nga dootu dootu dootu mën a nekk sa kanam comme ni nga koy bëggee pour mu euh, suturaal euh, bakkan bi ak gémmiñ gi mhm. léegi moo tax damay faral di utiliser gel bi d'accord waaw léegi beneen ñaareel moom mooy lan mhm. euh, à partir de dix heures dix heures ba dix heures dix mhm. man moom maa damay feebar parce laata ñuy joxe résultat yi. <laughs> d'accord. xam nga man nan lay nan lay nekk à l'aise si journée bi. comme hmm. comme journée tey bi. Hmm. ñu ne am nañ cinquante huit cas. Hmm. cinquante quatre guéris. ma ne alhamdulilah kon kay tey plus quatre la. mais bu ñu demee bu ñu demee ñu ne tey am nañ quatre vingt onze cas. waaw am nañ un guéri wala deux guéri. bu boobaa toute la journée laa la wax man dama. nga feebar waaw dama nekk. maa ngi rafetlu émission bi ni ngeen koy defee wax yàlla kontaan nañ ci. <laughs> jërëjëf. yàlla na yàlla gën a jàppale. allahumma amin amin merci beaucoup ñu xool ki ciy topp euh, ginnaaw euh, Mamadou Sy ginnaaw xaay sud la wote ñu xool kenn xam naa ni ñu ci des dinañu ñu ñu jéggal ndax waxtu baa ngi euh, jeex asalaamaaleykum. waaleykum sëriñ bi na nga def. alhamdulilah. foo ñu woowee. maa ngi Yëmbal Assane Gueye. Yëmbal Assane Gueye. bisimilah Assane. waaw ñu ngi amoon benn question ba xam feebar bi am mën na dal nit ba mu wér te du wàll kenn comme muy muy wàll quoi mais du santé dara lu ko dal. yaa ngi dégg li hmm, ma ndax mën na dal hmm. ko ba wér te fajuwul fenn te fekk mi ngi wàlle mën na nekk. d'accord. beneen mbir xam ni ay immigré lañ ñibbisi woon a xool ay solution am na ngay billet pour ñibbi. géeyee pour ñibbi pour ñu mën a dellu. d' accord. waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf kon ñi ngi woon ak Assane mu doon wootee fële ca yëmbal euh, professeur ñaari tali yi la ñuy njëkkee ak suñu taximaan bi nee na moom dégg na la nga wax ni gants yi nañ ko bàyyi. moom jàpp na ne am na gants yu baax ndax yoo xamante ne yi ñu defaree wëñ baax na nee na yu caoutchouc yi nga xamante ne ñooy <laughs> doy yooyu ñoo baaxul. Mhm. loo koy tontu déjà. na bàyyi masque na bàyyi gants yi. bu ñu bu wëñ ak kaw ci bopp yam en fait euh, lu tax ma ne gant bi. waaw euh, parce que gant bi moom bu ko yoree. Mhm. dina laal portière waaw dina laal volant am. Mhm. ak gant bi euh, dina ci def lu bëri. Mhm. doomu jàngoro bi day nekk. ci gant bi. alors que dañ nekk gant bi gant boobu mu yor noonu boo moytuwul dina ci laal kanamam. dina ci laal bëtam. donc moytuwul gant boobu moom mooy ñëw nekk source de moom mooy entraîner. source de contamination bi. moo tax ma ne gant bi na ko arrêté alors que bu yore ay loxo yi neen. waaw loxoom yooyu mën na ci def solution hydroalcoolique. Mhm. solution yi ñuy utiliser mën na ko ci def. bu dee instant yi muy kii noonu amul ndox ak saabu. Mhm. alors que bu yoree gant mënul def ci gant yi solution hydroalcoolique. les la solution hydroalcoolique c'est c'est pour. loxo yi la mhm. moo tax may ñëw peut-être tomb ci question ki doon wax waxu masque yi. waaw masque bi muy jël tooyal ko moom tooy xepp ak solution hydroalcoolique. Mhm. jaru ko. Mhm. bu mu bu jëlee masque bi lavable bi. fóot na ko ba mu set su si mu lee rax ci dool yi mu paase ko mën na ko sol. jarul mu koy jël di ko def daf ne soo ko repassé xaw ma day dagg xaw ma lan. ba pare xaw ma day xaw mel ne lu xaw a yàqee. waaw xam naa loolu moo tax. mais jël gant euh, c'est pas euh, solution hydroalcoolique c'est pas pour utiliser. pour euh, pour surface mënuma jël solution hydroalcoolique. pour loxo la daal pour loxo la. ak peau. voilà pour la pour loxo la. Mhm. Euh, donc gants yi je maa ngi koy waxaat sa gants yi sëriñ bi boo ko takkee. Euh, di nga raal sa volant di nga ci def lu bëri te boo takkee gan doo raxas parce que doo raxas sa loxo ak gants yi. de doo raxas ak tamit ak solution hydroalcoolique bi tam mënoo ko def ci sa gants yi moo tax ma wax loolu. d'accord Euh, dafa mel ni na ku nekk ci lii bi ñu jël ko peut-être. Euh, allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. Euh, soxna Ndeye Khady man maa ngi tudd soxna Binta Bokk maa doon dugg sànq balaa ngeen di ñëw ministère de la santé. ah d' accord waaw ay ca bisimilah. di rafetlu déjà émission bi di nuyu professeur Louise Fortes de Guénévo. Mhm. ñi nga xam ni ñooy équipe bu docteur Seydi pour wax ne gàcce ngaalaama wante tamit ñoom li ñuy liggéey pour mu rafet ba askan wi mën cee gis seen bopp foog askan wi moo leen di jàppale. xam nga ko docteur mooy faj wante askan wi mooy fegu te gis nga mu ngi wax ne malaat yi ñi nga xamante ne bi ay mag lañu di wax ñu am ay yeneen feebar yi nga xam ne dañu dëkkaale ak ñoom xam nga yeneen réew yi dañoo toogoon benn moment boo xam ne dañ doon tànn kan la ñuy bàyyi mu faatu ak kan lañuy bàyyi mu dund mm-hmm. Mm-hmm. dañu bëggul egg foofu ci Sénégal tey jii mhm. amul benn réew bu attan coronavirus mhm. amul benn réew bu am structure yu mën a dékku li coronavirus di indi ci ay fee nit ñu mhm. feebar moo tax ñuy wax ci ci ci segg bi moo tax bu nit feebaree buñ gisee kenn ko am doomu jàngoro bi ñu jël ay nit yi nga xam ne laale woon nañ ak moom yépp ñu teg leen ci benn bërëb di leen nemmeeku du ñëpp lañu nar a gisaat ci ñoom feebar waaye bëgguñu leen bàyyi ñoom ñëpp ñu am li ñu gis ci feebar leen mën a dabaat gis leen ci biir askan moo tax da ngay gis ñenn ñu leen di yóbbu ñuy nekk ay contact kese dara jotu leen ñu ne ñuy bañ di di jël ay post di ko dugal ci whatsapp di ko dugal ci facebook pour wane na dara jotu leen dañ faa nekkoon vacance déedéet nekk ñu fa woon vacance mhm. dañ leen fa tegoon pour fekk askan wi gën a yaatu bala ñuy jëflante ak ay nit bu ñu xam ñan lañ jëflanteeg loolu di law ci askan wi door di nekk jaaru siti kenn du xam fan lañ koy jaar mhm. ñu wax ne xeex bi daal xeexu ñëpp la. xeexu ñëpp la effectivement. ñii bu ñu sonnee kër docteur ñun ñoo leen war a wallu ñun ci askan wi. ñu doxalee doxin yoo xamante ne bii dina mucc ayib ba ñu génne jàngoroy corona. benn réew attanu ko rawatina suñu réew. sëriñ si ñu ngi continuer di ñaan waaye askan wi nañu gën a dëgëraat ci fegu gi parce que moo ñu mën a muccal réew mi attanu ko de. Mhm. ay mag docteur euh, docteur Louise Fortes Deggenebo ak ay nattangoom yi nekk ci région yi bu ñu toqiwee dañuy bàyyi seen loxo nit nit rek la. waaye nag ñun ñi ci askan wi nañu fulaal li ñu kër docteur di wax ku ñu nekk contact nga bu ñu la dëggee ci bërëb nga nekk fa di yónnee ay message naan fii ñu ngi fi di noos wala ñu ngi fi di lekk kenn fayul dara wala loolu ay caaxaan la de. foog ñu teg leen foofu bala ñuy wàllu yeneen askan yi loolu mu ngi dox ci biir dëkk mi ngi dox effectivement am nañ ci ay écho waaw. dañuy waaw dañuy tëdd foofu kenn dara jotuñu non yéen mënu leen xam ndax dara jot leen ndax li leen di woon ndax dara jot na leen ñu ngi koy xool ci seen biiri bakkan ak seen biir mm-hmm. bëli mm-hmm. Mm-hmm. d'accord euh, Binta boobu waxtu bi dafa jeex euh, professeur euh, loo xalaat ci alerte bi mu def nii. wax na lu am solo. Mhm. loolu moo tax ma nu wax ne cas contact yi man dama xawoon optimiste parce que ma ne cas dañ koy jëlee di ko saytu. am na fu ñu koy dañ leen di génnee seen kër yi. Mhm. yóbbu leen fenn di leen xool donc cas contact boobu bu ñu ko bàyyi woon këram mën na nekk bu dee dafa positif mën na dem wàlla ñeneen. loolu moo tax Sénégal ñëw ne ah cas contact yi lañ leen di mettre en quarantaine fenn. Mhm. di leen surveiller ñu defal leen. prélèvement euh, te li mu wax tamit euh, population bi vraiment ñu ngi ñaax population bi parce que ñoom ñoo ñu ci mën a jàppale. jàppale euh, ñaari tali laajte woon nañu am comorbidité diabète HTA. asthme ak euh, ramadan bi feebar bi lan ngeen leen di jox comme conseil. Uh-huh. Euh, instant yi nii du question sax ak ñi nga xam ne dañoo am feebar bi jabet HTA asthme ak beneen feebar bu chronique ñooñu moom dañ leen di wax ñoo gën a gën a gën a gën a utiliser matuwaay yi euh, sujet age yi ñi nga xam ne mag yi nañ bañ a génn kër yi. nañ def lu ñuy wax autoconfinement voilà parce que instant yi ñu confinement pour toute la population j'ai envie de dire également ñi nga xam ne bu dee mën na nekk ñi nga xam ne tamit dañu amee feebar chronique yi nañ tam ñoom tam nañ def autoconfinement parce que seetlu nañ ñooy gën a garaaw mhm. d' accord euh, professeur euh, laaj suñuy laaj des na waaye waxtu bii dafa jege te xam naa ne am na euh, journal bu war a ñëw à 11h euh, kon ñu ngi lay gërëm di la sant. Mhm. ñu fàttali ne infectiologue nga épidémiologiste nekk. responsable prise unité prise en charge euh, Covid 19 bu hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay di jàngalekat également ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar faculté médecine euh, kon euh, fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi di leen jox rendez-vous mardi prochain ci même heure ñu bàyyi leen kon ak suñu nattango Nicolas Diop.